nag Mamadou Dieye moo moom lañ ci àndal buñ ci paree ñu waxtaana ci wàllum formation formation mu doon lu am solo muy tax développement football boo déggee mu développé rek formation ci suuf lañ koy tàmbale mu jaarale ko centre yi nga xamante ni dañ ci waxtaane buñ ci jógee nag ñu waxtaane ci lépp lu jëm ci liste Aliou Cissé su probable bi nga xamante ne eh, ñu ngi koy génnee ñu ngi wax dinañ ci dikkaat ci waxtaane ci de fond en comble largement ñu débat ci ay joueurs yi nga xamante ñoo nekk en forme ak ñi nga xamante ne njort nañ dinañ dem ci li nga xamante ne mooy ligue Europe eh, fu coupe du monde boobule ci eh, list bi nga xamante Aliou Cissé ni ki alju alte vendredi bi la koy fas yéene eh, fësal moobule list ñu jóge foofu waxtaanee ci chronique Thierno Daaf saa su nekk dinañ ci dikkaat ñu am invité bu am solo bi nga xamante ne mun nañoo ne lom au 34 cap ak 9 but ci équipe national bu Sénégal muy daam Doane mu nga xamante ne béy na waaram ci football ci wàllum internet ci àdduna wërgal këpp rawatina ci FC Copenhague ñu ànd ak moom daam maa ngi leen nuyu. waaw ah. ah. ñu bàyyi la nga nuyu ak téléspectateur Walfadjri maa ngi leen di nuyu di rafetlu invitation yi di nuyu képp ñëpp ñu nekk ci plateau bi te di nuyu si euh, bépp auditeur ak auditrice Walfadjri jërë nga jëf euh, Dame Mbodj euh, eh, Dame Ndoye <laughs> pour maa ngi ne Dame Mbodj Dame Ndoye kon nag ancien international bu équipe nationale bu football buñ ci noppee ñu nuyu Cheikh Tidiane Gomis Cheikh nuyu naa la jërëjëf maa ngi sant yàlla bi ma mayee kàttan ma ñëwaat toog fii di wax euh, sama xalaat ci ñi nga xam ne ñu ngi seetaan nekk ci ay tolof tolof yàlla na leen yàlla may jàmm ba ñu ñibbiwaat seen ay njaboot waaw ñi feebar ñi tukki ñi nekk ñi nga xam ne caa bi daf leen féete ginnaaw di nuyu ñëpp euh, di nuyu tamit ki nga xam ne mooy sunu gan Dame Ndoye euh, dernière équipe bi mu jugee fii muy sama équipe la Jeanne d'Arc de Dakar kon nag euh, tey jii mu def benn parcours bu ex extraordinaire. Mhm. Euh, il faut que ñu nangu ko. Euh, di ànd ak di nara ñëw fii toog ñu waxtaan. parce que bàyyiwul réewam day ñëwaat ñëwaat nëpp jàppale réewam. Mhm. kon nag day ñëw te rek waxtaan. Mhm. teg lépp ci yoon. di nuyu Mamadou Dieye et eh, di lay nuyu yooyu yooyu tamit. jërë nga jëf Cheikh Ahmed Tidiane Gomis buñ ci noppee ma nuyu mon ami et frère Mamadou Dieye ma nuyu naa la. maa ngi lay fay bu baax euh, Chérif di nuyu bu baax ñu ni seetaan à travers Walfu TV ak ñu di seetaan ci plateforme Walfu bi ak ñëpp ñu ngi seetaan ci Walfu TV Chérif Sidi loolu laa amoon euh, pour wax ko jërëjëf gën koo présenter mooy suñu invité boobu la Dame Ndoye Cheikh Tidiane junj na ko sànq jaar na gendarme bu Dakar foofu la mujjee 2003 2005 mu daal di jógee foofu dem Al Saad ci Doha mu bokk na ñi nga xamante ne ñoom ñoo def euh, maanaam seen 2005 2006 mu nekk Al Saad bu Doha bu jógee foofu mu daal di dem académie Coimbra 2006 2007 mu daal di fa amal 25 match dugal fa 4 buts bu ñu ci jógee 2008 2009 mu dem Panathinaikos foofu la ci Grèce daal di fa amal 32 match. Eh, dugal 6 buts 2008 2009 OFSI Crète OFI Crète 15 eh, buts eh, mu daal di fa am 15 match Euh, foofu la ci Grèce ba tey mu daal di dugal 7 but buñ bu mu fa jógee mu dem FC Copenhague mu daal di fa amal 150 match dugal fa 82 but euh, bu mu fa jógee 2012 2015 mu dem loco lomocoti Lokomotiv bu Moscou euh, foofu la ci Russie de 68 match la am def foofu noonu mu daal di dugal 27 but 2015 mu dem Hull City foofu la ci Angleterre daal di def daal di am 15 match dugal 5 but 2005 2015 2018 Trabzonspor foofu la ci turki mu daal di am 72 match dugal fa 16 but euh, kon 2016 euh, mu dem Sunderland euh, mu dugal mu amal fa 11 match am naa de foofu nag après mu dugal fa un un mu daal di delluwaat équipe bi nga xamante ne foofu yëg nañ ko jox nañ ko cër jox nañ ko raaya def nañ ko monument ak légende moom la FC nag mu daal di fa delluwaat mu daal di amal fa 65 match dugal 35 but daam xam naa ne moom su ma juumee ci présentation bi nga nga dindi ma ci. waaw ma jógee globe trotteur la de. Euh, globe trotteur la kat. <laughs> globe trotteur <laughs> gis nga parcours bi nga jaar jaar bi mu jaar. waaw commencé ko Doha. waaw Doha bi nit ñi xalaatu fa. voilà sax moom mu dem fa. voilà et et et foofu sax man euh, dama ci bëgg a laaj euh, comment ça s'est passé ba nga jugee. Jeanne d'Arc année bi l'épopée de la GIA. <laughs> année bi GIA di def résultat yu baax yi temps Omar Seck nga jugee foofu dem Doha. pourquoi Doha ci dëkku naar yi. waaw je crois loolu choix wu euh, Issa loolu woon je crois professeur Issa Lô mm-hmm. mm-hmm. parce que euh, président Faye Omar moom euh, daf ma waroon yóbbu nant bu mm-hmm. ñu joué dernier match bi dama waroon ñibbi si après dem nant parce que moom mi ngi woon foofu je crois doon négocier contrat bi. donc dama waroon jóge fii dem dem foofu pour signer. après euh, man xaw ma si woon dara quoi donc mhm. euh, professeur Issa Lo moom waxoon na ñuy dem doxa ñu visiter su la neexee nga toog après su la neexul nga ñibbi si. et pourquoi tu as accepté euh, parce que. xam nga loolu parce que. professeur ci loolu. parce que hmm. dafa indi coow. <coughs> indi na benn coow fii Sénégal. dégg au niveau au sein de la président Feu Omar Seck moom nekku fa woon. Hmm. match boobu je crois dafa demoon moom mi ngi France. di hmm. négocier contrat bi. ak Nantes. donc si la ma professeur Issa Lo wax nañ dem man xaw ma ni xaw ma woon sax moom da dafa demoon pour négocier contrat bi je savais que ni Nantes euh, ñi ngi doon discuter ak moom waxoon na ma ko mais xaw ma ne woon sori nañ noonu quoi donc euh, xam naa après si la ma professeur ne nañ dem nga xool su la neexee nga toog su la neexoon bon comme man euh, xaw ma woon ma ànd ak moom comme j'étais jeune ma ànd ak moom ñu dem ñu signé loo ma après moom mu ñibbi ma toog <laughs> xanaa defoo test dañ laa signé directement. waaw dama signé directement. ne <laughs> comment ça s'est passé sa jaar-jaar foofu. waaw foofu xam nga foofu dafa compliqué période bi ma fay dem defe naa benn étranger wala ñaar la ñëwoon droit donc bi ma fa demee euh, ma ma joué après ma gaañu ñoom ñu jëliwaat beneen étranger. après ma ma commencé joué joué lu bëri parce que dafa am beneen étranger bu ma remplacé. Mhm. après euh, ma jël décision résilier sama contrat deux ans laa def ma résilier ko après si laa dem euh, France après dem Portugal. ok mooy académie Coimbra Coimbra. Panathinaikos tamit jaar nga fa Grèce fi nga jaar yëpp ban ban ban dëkk la seen football gën la marqué. dëkk yëpp parce que dëkk yëpp parce que championnat bu ne boo demee da ngay fekk euh, dañuy différent quoi championnat boo dem day différent ak beneen bi nga jógee donc da da war a pardon da war a ñëw adapté wu donc euh, championnat bu nekk dafa am style de jeu am fan moo gën a métti yoon ci yow. yëpp a métti football yombul <laughs> yëpp a métti problème mooy naka ngay def ba adapté wu quoi. Hmm. waa mais euh, Dame nga xam ne man bëggoon naa ko xam euh, man lan moo tax Dame Ndoye teel a décroché avec l' équipe parce que fii il faut que il faut ma laaj la ko mënuma laa toog jàkkaarloo ak yow te man duma la ko laaj da nga teel a décroché lan la lan la ci yow la ci keneen. non décroché wu ma dañ ma rek. Ah, voilà dañ ma woowul. woowuñu ma kon officiellement ba ngay jël ba ngay jël ba ngay bàyyi football bi déclaré ni que nga équipe nationale. non mosuma ko def en tant que. voilà bu ndax boo xamante ne. am na dayoo bu mu am 456 matchs nga disputé dugal nga sa carrière 187 buts def 67 passes décisives joueur bu doy noonu noonu ñu jékki-jékki gisatuñ ko équipe nationale bu Sénégal lan nga ko dundee yow en tant que ancien capitaine de l' équipe nationale du Sénégal. non dara sauf que peut-être période boobu dina la metti di nga li nga war a mën a apporter sa équipe nationale donc euh, doo am opportunité bi parce que joxuñu la ko. mais euh, après euh, beneen côté bi da ngay accepter te xam ni avant ngay ñëw am na ñu fa nekkoon donc soo ñëwee après da ngay dem am ñeneen ñu la remplacer ko mais amoon nga yaakaar aussi ne comme woo euh, am na benn période boo xam ne woowuñu la mais yaa ngi doon dundee yaakaar ne bis dina jot ñu woo la puisque tamit buñ la woowulee n'empêche que yaa ngi continuer di def say performance non man en fait euh, su may su may joué fi ma nekk laay concentré wu quoi. Mm-hmm. fi ma nekk laay concentré wu ba leneen ñëw après. vu que situation bi ni mu demee woon euh, bon peut-être noonu la mënoon demee parce que euh, peut-être sélectionneur bi il comptait sur les jeunes donc euh, s'il compte sur les jeunes. avec mais yow màggetoo woon. waaw euh, ah, non màggetoo non moment yooyu moment yooyu pour dire la vérité moment yooyu màggetoo parce que nga jógee la CAN de 2015. Hmm. <coughs> ñëw 2016 ak 2017 booy xoolaat tu as fait un bon championnat. def ki yooyu yëpp bon mais te Maguetto xam ñu Dame Ndoye bon mais c'est quoi ah mais da nga amul woon affinité bi wala question boobu peut être entraîneur moo si mun a mun a répondre sélectionneur bi bi nekk bi fi nekkoon moo koy mun a répondre parce que du man maa yóbbu sama bopp équipe nationale man football rek laa mën sama club def ay performance après les des moom moo ko yor moom moo yor décision ak ay choix am aussi tamit euh, bëggoon nañ xam marqué nga say empreinte ci équipe nationale bu Sénégal ñu jekk jékki gis sa benn rakk tamit bu ñëw muy Ousmane Ndoye. sa mag sa mag boog muy Ousmane Ndoye ñu jékki-jékki tamit <coughs> ñaa ñëpp gisatuñ leen ci équipe bu Sénégal bi famille bi lan la ko dundee si sa côté. non moom moo njëkkoon nekk équipe nationale. moom moo mujjee ñëw moom moo njëkkoon ñëw nekk équipe nationale. Mm-hmm. Mm. léegi famille bi du ko dundee ñu jékki-jékki gisatuñu Ousmane Ndoye Dame Ndoye ñëw ñu amoon ci moom yaakaar jékki-jékki gisatuñ ko ci tanière bi aussi. waaw mais comme li ma la wax football xam nga c'est pas éternel. Mm-hmm. boo ñëwee da ngay def sa temps fii bi suñ la joxee choix jox la def def choix si yow porter choix si yow dangay ñëw nga def ko mooy li ma doon def tout le temps donc beneen entraîneur bu ñëwee porté wul choix si yow donc euh, rien change da ngay da ngay connaître sa fi nga nekkoon rek maa woon sama club di di di jouer donc dara changé wul pour man pour man sama vie dara changé wul quoi. d'accord xam nga xam nga est-ce xam nga nu ñu leen doon euh, maanaam euh, c'est que y a dañu leen doon qualifier dégg nga les têtes brûlées les durs à cuire <coughs> les têtes brûlées les durs à parce que il faut ñu wax ko loolu lañ doon wax dégg nga bi euh, entraîneur bu bees bi ñëwee il faut dire la vérité bi Aliou Cissé ñëwee loolu euh, wax boobu commencé non les têtes brûlées euh, écarter les têtes brûlées les durs à cuire est-ce que loolu bi ngay dégg moo kii yooyu affaire yooyu noo ko dundee waaw noo ko bu fekkee dégg nga ko je sais man xaw ma lan la ñuy woowee tête brûlée de toute façon man Aliou Seye musuma moom benn benn relation bu ñaaw à chaque fois avant muy doon coach su daan ñëw regroupement dafay taxaw ak man ñu waxtaan mu conseiller ma donc du coup dama jàpp ni relation bu normal la ñu am après su ñëwee def ay choix am donc ay choix am la man mënuma si dara quoi. Mm-hmm. sa jaar-jaar équipe nationale avec 34 sélections nga dugal ci 9 buts eh, lan moo la ci gën a marke ak lan ngay rëccu. Euh, aw ma dara lu ma si rëccu parce que euh, équipe nationale chaque match ma ñëw rek fierté la chaque match ma ñëw équipe nationale chaque jour ma dugg si terrain pour défendre couleur rek fierté la. mais am na li nga xamante ne bëggoon nga koo def ak équipe nationale mu des loolu lal la. waaw football mënoo def lépp <laughs> toujours dina am leen lu manqué ñeneen ñoo koy mottali mais da ngay jàpp ni yow heure boo duggee si terrain defar li la war ba nga xam ne boo génnee di nga mën a siggi mais lépp moom mënoo koo def. d'accord kon dinañ ci dikkaat ñu dinañ ñëwaat ci yow nag laataa ñu dugg ci li nga xamante ne mooy actualité bi Ligue des champions bi tey xam nañ résultat euh, maanaam ci rajo sort huitième de finale yi nga xamante ne. fësal na ba bokk na ci ñaari choc yu gën a mag bokk na ci PSG Bayern ak Liverpool Real nag kon nag mu doon ay jongante yu ama ama am solo euh, euh, daam bi nga gisee euh, affiche yi nag d'abord ban commentaire nga ci am affiche yi jotuma ko gis nag parce que dama am ay invité yu fi nekk mm. donc ñoom laa nekk loon fan yi yëpp te mm. ñu ñëw doon joxe ay don fii mm. donc moo tax euh, pratiquement suivre ma championnat bi semaine bi yëpp ko gis xaw ma aw ma news yi quoi. ok kon nag euh, mooy Dieye dina la jox li nga xamante ne mooy affiche mm-hmm. kon nag bokk na ci PSG Bayern. Mm-hmm. moom moom concerne Sadio Mané euh, bi nga xamante ne ba dina daj ak Bayern ak PSG Liverpool tamit ak Real mu doon remake final bu passé bu dee suñu sénégalais la kii di Edouard di ak kii di Kalidou Koulibaly ñoom Dortmund lañu am. mu doon match bi nga xamante ne am solo léegi nag ki nga xamante ne mooy euh, dal na fu métti mooy xanaa Abdou Abdou Abdou Diallo ak Leipzig ñi nga xamante ne dal nañ ci City mu doon jongante yu métti ci ci ci ñoom <laughs> ban commentaire nga def ci loolu. mais euh, Leipzig ak euh, City du match la. man jàpp ma ne dafa métti de. Mm. jàpp ma ni genre comme dafa métti si ñoom Abdou Diallo non si ñoom ñaar ñëpp lay métti parce que City. boo seetaanee temps yi kii dañuy xaw a kii quoi ci euh, peut-être. Euh, Dortmund ak euh, Chelsea Dortmund ak Chelsea match boobu moom ñoom ñaar xaw nañ doole doole. parce que ñoom ñaar ñëpp dañ nekk dañ nekk dañu bëgg a gagner quoi. Mm-hmm. dañ nekk en quête de victoire. d'accord donc. PSG ak Bayern. waaw. c'est que PSG lu mu dugal da koy encaissé <laughs> non parisien yi baal na. mën na dugal moom. waaw eh. ah, dugal moom dina ko def. Eh. mais day encaissé. lu mu dugal rek jëlaat. waaw day encaissé. <laughs> ah loolu ko mais tamit gis nañ tamit Bayern tamit ñoom tamit seen ginnaaw bi daxaw naa des de. waaw mais xam nga Bayern ñoom ñoo gën a. nan laa ko mën a wax ñoo gën a complet ci ñoo gën a compact si ah. suñuy défendre. Mm. peut-être mën naa may erreur ñu dugal leen. Mm. mais boo ko boo ko comparer ak euh, défense Paris <coughs> bon Bayern je crois moo gën a moo gën a dëgër quoi défense Bayern mm. parce que <coughs> boo dee xool attaque bu Paris bi mm. peut-être défense Bayern mun na contenir mm. mais attaque bu Bayern mm-hmm. je pense pas que défense bu Paris mën ko continuer xam nga lan laa bëgg a xam man dama bëgg a euh, euh, maanaam joueur sénégalais yi def Ligue de champions ñu wax ma lan la leen Ligue des champions di def bu ñuy joué match de Ligue des champions. bu dee yow joué nga Ligue des champions. Ligue wax ñu comment ça la waaw. si Ligue des champions fête la joué naa ko joué naa ko. Mm. Euh, fête la quoi fête la découverte la expérience la xam nga parce que pays bu ne ngay dem en fait dëkk bu ne ngay dem différent hôtels gis nit ñu bees stade bu bees vestiaire yu bees. et puis euh, fête la quoi su euh, ambiance bi nekk si biir euh, si biir si biir stade bi. parce boo ko joué tu fier. parce que day fees waaw da ngay. tu fier ah ci les mm, <laughs> dafa neex waa ñu day day xaw na jege tuuti ak match na nationale mais bokkul ba léegi quoi. Mm-hmm. parce que dañ lay foofu dinañ la tegal benn hymne mais fii hymne spécial la. xam nga loolu mooy hmm. différence bi quoi. Hmm. coach noo def euh, ban commentaire ngay def ci affiche yi. huitième de finale waaw mais c' man affiche yi man li ma ci gis mooy que c' est vrai am na ci ay choc. mooy euh, PSG Bayern euh, gis naa ci tamit. Liverpool kii Real. mais il faut gars yi def très attention. Mm-hmm. am na équipe boo xam ne dafa xam Ligue des Champions. Mm-hmm. daf ko xam te ñëwaat na bien vrai que. dañ koy boole ci outsider yi. mooy Milan mooy Milan AC. Eh, non de xam nga il faut ngeen il faut ngeen bàyyi ko xel. Mm-hmm. Eh, eh, parce que à part à part Real moo ëppale li mu jël sept fois. sept fois Ligue Champions donc nag il faut que euh, ñuy bàyyi xel un peu ci équipe boobu parce que am na ci ay individualité yoo xam ne euh, xam nañu le haut niveau ku mel ni dégg nga bu ñu demee après coupe du monde bi ah, ah, bien vrai que mag la ah, Ibrahimovic mag la mais dina ñëwaat soutenir leen et dañu am équipe boo xam ne presque booy xool ci équipe bi ñëpp ñu ngi dañuy joué ji coupe du monde. Mm. dégg nga mm. kon nag euh, équipe bu xam coupe du euh, équipe bu xam kii la la Ligue des champions nañ moytu nag. <laughs> parce gis naa ñu teg ko ci suuf teg ko fële bañ ko faale. <laughs> attention loolu daal laa am lu ma ciy wax. kon Dieye. waaw bon eh, li ñu ci wax moom mooy affiche yi gën a fës rek bokk na ci Bayern Sadio Mané ak eh, équipe bi nga xamante ne moom mooy Paris Saint-Germain boo xoolee final remake final la Liverpool ak. Eh, ak Real Madrid tamit remake final la boo xoolee quatre yooyu ñoom ñooy disputé depuis des années li nga xamante ne moom mooy Ligue des champions. peut-être moom moom euh, Paris euh, Paris Bayern mi remake demi finale. parce que 2000 euh, année Covid bi. non joué nañ final ñoom ñaar. joué nañ final ba commande di dugal bii bi ki Kings lay commande. Ah. waaw boobu ñoom ñaar joué nañ ah. final ñoom Paris ak. ak ak ak boobu la Bayern di jàpp di rater di dóor ay score yu bari. ñoo ko si Paris mu dóor ko c'est moment wu mu dóor ko. Liverpool année Covid bi la année en tout cas nekk na ay affiches yu neex man bëggoon naa xam tamit. Euh, parce que Gana Gueye dispute na finale avec Paris Saint-Germain euh, Sadio Mané dispute na deux fois finale avec euh, Liverpool gis nañ Edouard Mendy jël dispute na finale jël ko. trois fois finale trois fois finale après mu jël. Sadio Mané trois fois la trois fois finale voilà bëggoon nañ laaj aussi tamit. 2018 euh, waaw est-ce que moom tamit euh, Ndam dam Ndoye gis nga fi benn si <coughs> affiche benn sénégalais boo xamante ne njot nga ne peut-être dina dem. mën naa naa sori. am nga ren Ligue des champions dafa neex. Mhm. parce que. équipe yi ngay lim nii yëpp peut comme li nga am na yoo xam ne bàyyiwu leen xel mais jàppal ni ku nekk mën na koo gagné parce que boo xoolee instant bi équipe yi joué nii am na si ñoo xam ne am nañ quelques blessés am nañ ñoo xam ni seen équipe doxul carrément donc euh, mën nañu yeewu comme mën nañ bañ a yeewu donc moo tax mu mu xaw a complexe match yi. surtout retour coupe du monde ñu bëri dañuy bëgg a wane seen bopp aussi. Mhm. donc euh, dafay neex quoi. Mhm. Hmm. mu ngi noonu kon nag euh, Djiby Niang defal nañ ci ci résumé li nga xamante ne mooy affiche Ligue des champions pour suñu téléspectateurs nañ ko seetaan ñoom. dimensions espagnoles pour un remake de la dernière finale de Ligue des Champions lors des huitièmes de finale en dehors de Paris saint Bayern Munich de Sadio Mané le plateau des huitièmes de finale fait d'ores et déjà saliver Liverpool retrouvera le Real Madrid pour un remake de la dernière finale de Ligue des Champions titre remporté par les Madrilènes au Stade de France par un but à zéro lors d'une soirée entachée par de graves incidents et problèmes d'organisation et Carlo Ancelotti, mais aussi avec Karim Benzema, tout récent Ballon d'Or 2022. Dans les autres rencontres, le PSG aura encore rendez-vous avec le Bayern Munich. Dans les autres rencontres, les Allemands du RB Leipzig d'Abdou Diallo défieront Manchester City de Kevin De Bruyne et son prodige Erling Haaland, tandis que le Borussia Dortmund affrontera Chelsea d'Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly. Et l'AC Milan de Fodé Ballo-Touré rencontrera Tottenham de Pape Matar Des retrouvailles et deux adversaires en février prochain. Pour le programme au complet de ces huitièmes de finale, le Bruges recevra Benfica, leader de son groupe devant le PSG. Francfort va affronter à domicile pour la manche aller Naples de Victor Osimhen. Inter de Milan fera face au FC Porto. Ces huitièmes de finale de C1 sont programmés du au février pour les matchs aller et du 7 au mars prochain pour les manches retour. mu ngi noonu ci li wàllum Ligue des champions nag buñ ci noppee ñu jàll ci li nga xamante ne mooy Ligue 1 Ligue 2 suñu championnat local bi tamit eh, defal nañ amal nañ seen ñeenteelu bëccëg bi nag Mamadou Dieye mooy dikkaat ci eh, yooyu la jongante voilà donc euh, joué nañ ci week-end bi passé li nga xam ne moom mooy euh, quatrième journée bi ci Ligue 1 bi mais mu am ñetti première ñetti première première défaite pour Teungueth Football Club mi nga xamante ne dafa doon enchaîner trois victoires première tamit euh, victoire pour US Gorée Teungueth Football Club ak US Gorée pour euh, Teungueth Football Club ak US euh, Gorée c'est très difficile nga gis Teungueth Football Club dem US Gorée mu mu mu kii ko mu daan ko même entraîneur bi ngi doon wax ñoom seen objectif mooy vaincre le signe indien c'est-à-dire dem à domicile dóor US euh, Gorée tout le monde croyait que nag day après day yomb mais malheureusement bañ demee US Gorée dafee na daan am ci première victoire am beneen bi si tamit mooy gis nañ enchaînement bi jaraaf def parce que au début c' très difficile avec Youssouf Dabo mais dafa mel ni Youssouf léegi commencé naa retrouver le chemin des victoires parce que am na deux victoires consécutives euh, le week-end euh, dernier ñoom ñoo deux génération foot un but à zéro AS Pikine ak Dakar Sacré-Cœur match nul un but partout mais tamit victoire Guédiawaye football club sa première victoire parce que ñu ngi ko doon xaar <laughs> waaw xam naa ko lu mu tudd sax Souleymane Diallo parce que après mu am victoire mais victoire bu importante la ci euh, club bi puisque ñu bari ñu ngi ko doon xaarandi donc bu ñuy def kii bi onze moom moo dugg par rapport ak journée bu passé douze bii nañ dugaloon kon euh, benn bii moom mooy différence bi trois matchs nuls moom moo ci am deux à l'extérieur deux à domicile Teungueth Football Club moom mooy conserver sa place de leader avec points Casa Sport conserver tamit place dauphin avec 7 euh, points Jaraaf ñëwaat en en en en force ak 7 euh, points US Gorée moom moo nekk ci ndàdd bi avec 4 points malgré sa victoire et Ceneps Excellence euh, moom moo am tamit si suuf a suuf ak euh, benn poñ mais ñaari équipe moom xam naa gumis bi yàgg def commentaire dina ko xam chaque année ñoom ñooy nekk foofu ñoom ñaar mais duñu wàcc <laughs> jamais <laughs> waaw duñu a wàcc <laughs> waaw boo demee ba ñu yaakaar dañuy dañuy wàcc rek mais ñoom duñu wàcc léegi tamit ci Ligue 2 aussi gis nañ na euh, neuf bi marqués moom moo fa moom moo fa am contre huit <coughs> la fois passée cinq matchs nuls loolu nag c'est c'est waaw cinq matchs nuls waaw une victoire à domicile et une victoire à l'extérieur AZ neuf points moom moo nekk première Ndiambour huit points Thiès euh, sept points troisième Demba Diop ak euh, Kër Madior ñoom ñoo nekk ci suuf mu nekk nag euh, bon. Oslo moo doon joué tey waaw Oslo moom dafa def match nul 0-0 ak équipe bi nga xam ne moom mooy. bu gagné woon moom mooy jël paie. moom mooy jël paie parce que 7 points bu gagné woon dinañ amoon 10. voilà bon donc euh, coach moom nekkoon na ci euh, kii bi peut-être dina ci def benn analyse dina ci mën a def benn analyse par rapport ak les deux résultats ci Ligue 1 bi ak ci Ligue 2 bi. d'accord su ñëwee bi daam da ngay seetaan Ligue 1 bi xam na. waaw Ligue 1 bi dinaa koy résultats yi quoi. ah résultats yi résultats yi laay seetaan prince ma dem stade. comme bu euh, Thiès di recevoir. daaw bi ñuy dernier match yi doon naa dem stade. bi euh, def naa si doon joué ok mm. mais ren demagoo. waaw ren demaguma. d' accord mais mais ah globalement championnat Sénégal noo ko gisee ak euh, souvent bu ñu demee ci compétition africaine dañuy xaw a teel a toog affaire yooyu nga foog lan moo ko waral par rapport boo comparé seen jamono yéen Gomis bu ñu ko doon wax gendarme yéen a ko yóbbu woon et croix dem ngeen ba demi finale. voilà léegi lan mooy différence lu tax yéen ngeen daan réussir bi pas ñii di laaj. waa xam nga man dama yaakaar ne il faut ñu gën a gëstu euh, football local bi. Mhm. parce que il faut ñu ñu ñu ñu ñu il faut ñu oser il faut ñu oser def euh, def euh, gazon jeunes yi di ci jouer. gazon naturel bi waaw parce que très important. ñun boo xoolee bi ñuy bi ñuy dem ja Sénégal gazon moo fi amoon. Mm-hmm. amul synthétique parce que gazon ak synthétique bokkul. bokkul bokkuñu même soo ko soo tàmmee synthétique bokkul parce que gazon bu tooyee rek boo demee da ngay da ngay passé à côté. parce ngay def contrôle yi muy muy ëpp xam nga ngay ngay ngay def appel bal di fusée. yooyu yëpp boo ko boo bu nekkee saint engagé boo demee si kii dafay dafay compliqué. day sonn da lay sonal da lay sonal gëmoo ni tamit eh, suñu fuite de joueurs yi yéen ñu baax ñëpp yaa ngi nii di yóbbu nañ ku ci fi ku fi baax rek ñu yóbbu ko gëmoo ni tamit loolu tamit mun na nekk. waaw mooy li ma il faut ñu oser. Mm-hmm. defar yooyu bu infrastructure yi taxawee salaire yi yéeg joueurs yi dinañ toog mais tant que joueurs yi ñu ngi fay ak yenn salaire yi dañuy gisee leneen dañuy dem. dañuy dem il faut ñu créer moyen yoo xam day téye jour yi mais suñ ko créer du fóotu jour yi du footu équipe yi tamit parce que équipe yi ñoom tamit dañuy ñoom loolu loolu moo leen arrangé parce que amuñu subvention bu doy mm-hmm. yenn infrastructure yi nekku fi donc pourquoi nga téye xale bi soo ko téye day mel ni soxor donc loolu moo tax souvent équipe yi di bàyyi ñu dem d'accord Euh, Gomis gis nga Ligue 1 bi euh, par chaque fois bu ñu yéegee bu ñu demee ba franchir benn cap ñu wàccuwaat keroog ñu ngi doon saluer ratio bi yu bëri yi mais bii par xaw naa wàññeeku tuuti am nañ jamono ji nekk onze but. damay rebondir un peu ci euh, Dame Ndoye li muy wax xam nga lu tax mooy waxee ak yow nii ñoom bi ñuy nekk GIA boobu amatul amuloon football amateur da leen di laaj ñoom. gis nga ni muy waxee nii parce que loolu la dund bi muy jógee fii di dem ci club bu GIA bi mooy salaire yu baax <coughs> mooy te entraîné euh, entraîné euh, ci terrain yu baax xam nga di préparer ay match ci ay conditions yu baax loolu la bëgg loolu la bëgg wax loolu moo tax il faut que ma revenir ci un il faut le comprendre et loolu mooy logique bi kon loolu mu tudd dañoo régressé kon. non non si mais si. Ah, ak ni ñu nekkee professionnel. non doo dégg la ma la xam nga da ngeen fekkeewul amateur am na non c'est que sincèrement dama lay wax benn affaire dama lay jox benn exemple condition yi euh, maanaam joueurs yi doon am dans les années soixante dix ñoom Ndofène Fall ñoom Cheikh Seck ñoom Nangam moo gën ñii ñii ay vingt mille lañ leen di fay ay trente mille. ñee daal ñoo doon fay loolu sañ ñu ko ñii bi ñëwee ki kii laaj ka bi mu nekk GA salaire loolu la loolu laa la dama ne football professionnel bi tour la rek bii tour la rek professionnel tour la rek mu neex leen mu naqari leen kii la mooy que aujourd'hui il faut que ñu delluwaat ci benn affaire mooy gagné nañu coupe d'Afrique waaye léegi du ñu dellu ci football à la base toppatoo ko xam nga euh, gis nga il faut créer des conditions da nga def ne daan mbay mi tey jii bu ñëwoon à Thiès fekk le vrai professionnalisme day dugg da ciy participer waaye fu mu nekk nii professionnel bi boo ci duggalee sa xaalis da perte da sànni sa xaalis balaa càgg ñoo maye mais tey jii bu fekkoon ne suñu professionnalisme dafa jaar yoon les ñii joué ba pare ñëw. dañuy ñëw bokk ci action yi loolu loolu moom mooy loo xam ne loolu lañuy ñuy defaree football professionnel dem ba defar ko tey jii xoolal tey boo xoolee en France les président que tu vois là en France et en Angleterre les managers généraux ay anciens footballeurs la ñu woon. effectivement ah waaw dañoo ñëw président yi dañoo dem ut xoolal Gérard dans deux ans Gérard Piqué sera. le président du Barça. jël exemple Bayern Kane moo nekk président. voilà ah mais loolu laa lay wax dama ne condition yi ñuy créer la dañuy créer condition mais malheureusement ñi koy xalaat taluñu ko heure bii may wax ak yow benn délégation bi dem na coupe du monde. Ah taluñu ko. même délégation bi dem na. dem na. ah bon waaw dem na démb dem nañu taluñu ko beneen délégation baa ñu waaj a dem. xamuñu sax li xew ci football local bi. <coughs> kon année sacrifice la doo dégg lu ma la de non dem nañu. mais dem te ñoom te dañoo dem de. o doon de am nañu man maa la quoi. Ah man maa joxe le directeur technique national dem na. yow kooku dafa waroon toog xool waaye dem na. moom moo jiitu zone yi quoi. moo moo dem na yàgg na dama la jox information boobu. tappale bi ñoom ñëpp dem nañu. léegi léegi léegi noo gisee en dents de scie bi nekk. bon en dents de scie bi wax naa leen ko dama leen ko expliquer fii nee naa leen dañoo yàq départ mu championnat bi te loolu di ngeen koy gis tey équipe day gañ waxoon naa ko fii laa toog sax ma ne leen euh, championnat bi da kuy gagné bi saag wadd te dañuy gis de bon contenu. par doo dégg li ma la wax. contenu baa ngi fi c'est pas la faute des entraîneurs. la faute xam nga ñan la moom mooy ñiy xalaat suñu football local. ñu koy xalaat amuñu xalaat ñooñu dañoo ñëw ci football accidentellement amuñu xalaat football da koy xalaat laa laajal kii bu demee euh, euh, euh, ay Copenhague ay fi mu jaar yëpp ñooñu dañu lay xalaatal identité de football dañ la koy jàngal yooyu yëpp dañ la koy jàngal mais non fii championnat le 10 lay commencé ah non non reporté nañ ko le 15 nañ ko le 20 avec ça nga bëgg l'entraîneur année bii man man je serai le défenseur des entraîneurs pourquoi parce que on a bâclé dañoo yàq seen plan de préparation donc lii mooy am tey jii douze on était à douze buts. douze bi ñu wàcc onze. et alors que première journée tamit c'était huit. <coughs> huit et booy xool dama lay jox beneen affaire. Euh, ce qui est extraordinaire mooy que euh, dimanche où il y avait cinq matchs dañoo joué cinq matchs départ quarante cinq minutes benn but moo am sur cinq matchs benn but moo am benn but moo am mu ñëw fekk trois bit euh, quatre buts kii euh, ce qui veut dire mooy jàmbaar jàmbaar bi mu ne woon ka euh, doo dégg dimanche bi rek non doo dégg doo dégg dama ne dama ne dégg bu baax li ma dama ne la xool y avait un seul dimanche ba quarante ba ñu mi bi ñu ñëwee deuxième mi-temps la but yi commencé ñëw ndànk ndànk puis un plus trois quatre yi muy cinq on a marqué comme onze. donc six buts yi mu nga dugg deuxième période. pourquoi parce que préparation bi la. ci la gars yi commencé léegi ñu ko ñoom commencement noonu la joué du ñu duggagum dans le bain loolu moom mooy problème bi. Dieye euh, lan lañ ci yow. waaw bon luñ ci wax rek moom mooy euh, c'est vrai bu ñuy gis benn championnat boo xam ne actuellement c'est très difficile nga pronostiquer ne par exemple ne Casa moom mooy jël championnat wala kii mais loolu mën na koo am bon dañuy saluer peut-être contenu bi peut-être luñ di dul saluer rek mooy dañ koy wax sax am na sax entraîneur yoo xam ne ñu koy commencer di reconnaître mooy tëdd bi nga xam ne dafa dafa dafa bari quoi. waaw di tëdd fii. Ah, dalay dalay rey sax yow mi yow mi nga xam ne da ngay toog ci kii bi di seetaan kii bi da ngay am problème beneen bi sopp tamit xam naa dafa naq dafa du neex a wax mooy renouvellement des entraîneurs faaw ñu am ko alxayri ba nga dalee nekk ci sport bi ba tey les mêmes entraîneurs ñoom ñoo ci nekk buñ la dàkkee fii nga dem fee léegi boo demee fee la première chose à faire mooy comment faire pour ba duñ ma duñ ma dàkkaat wala duñ ma xarab loolu xam nga loo koy lijjantee nga nekk nga bi day am xam am lépp du ma tudd yenn kii pour destam par exemple boo jëlee par euh, euh, exemple Sonacos gisuma ñu leen dàq football ay jours yi mën a football nañ am mais dañoo attentiste ba mu ëpp dañuy taxaw di xaar rek ba finalement am na leen yoo xam ne renouvellement ci kii bi ci la ci la ci renouvellement euh, entraîneur xëy na peut-être ko amee peut football bi niveau bi dina xaw a yi ah, mais chaque jour les mêmes têtes ñoom ñooy ñëw ah, bu la dàqee fee nga dem gérer ah, fee peut xam nga comme football kan ma koy xalaat xalaat. kan mooy kan mooy xalaat loolu renouvellement. Euh, DTN bi la. Ah, waaw ah, ah, DTN bi waaw. anamu. waaw mais mais mais Cheikh Tidiane tamit. de loolu xam nga loolu tamit après diplôme yaa ngi toog en sous en sous mu ngi ko doon kaas. parce que il faut nga am benn diplôme diplôme je crois que licence bu B bu CAF. Mhm. nga mun a entraîner Ligue 1 professionnel parce que professionnel bi moo ko laaj. Mhm. bu dee c'est un cadre un euh, quelques entraîneurs ñoo ko am il faut ñu def tout. waaw mais doo déggee kan mooy def ay stage di defar entraîneur yooyu yëpp kan moo koy kii direction technique nationale mooy def loolu mu ne non on a un euh, on a dañu am carence su entraîneur et loolu depuis dix ans mu ngi nii ñu ngi wax carence su entraîneur <laughs> ce sont les mêmes personnes ñooy ñëw di ñëwaat ñooy wër ñoom ñoo yor diplôme yi waaw waaw waaw waaw dama ne booy jël ñoo ñooñ di ñëw di ñëw di ñëwaat ñooñ di renouveler di kii mais de da ngay dem xool nga def ay stage mu am ñeneen ñu bees ñu ñëw ñooñu nga jox leen équipe. ñooy dàkk xalaat sax. waaw jeunes ñoom ñooy dàkk xalaat booy doog a ñëw yow si ngay ëppee expérience ak nii mais comme ñu fi nekkoon à chaque fois bu ñuy ñoom seen équipe ñu leen jël euh, am am nañ ci ñoom a kii bi commencé na. Euh, joué bi nga xamante sa jamono entraîneur mu nekk di entraîneur ba léegi. fii nii. Ah. Euh, bi nga mujjee gendarme kan moo nekkoon. waaw Sele. bu dëkk Thiès. Ah, Sele ah, yoroon na Karim Mané musulaa yor. moo formé yor. Karim ñan la ci xam bokk <laughs> xam naa ko si mais pense que ni footballu Sénégal te dëkk boo dem. football dëkk bi dafa war a am identité hmm. identité bi day reflété wu ci championnat bi dëkk boo dem hmm. Sénégal dañu war a am genre formation yi père di wax dañ si war a dugalaale façon bi ñu bëggee ñu fubalee nga xam ne joueurs yi bu ñu yegee équipe nationale dañuy adapté wu forme li ñuy entraîné li ñuy li ñuy defal formation yi ñuy defal coach si dañ si war a adapté waale identité identité footballu Sénégal sans pour autant sax entraîneur yi xam ko après bu entraîneur bu nekk yore équipe système yooyu lañuy ñuy loolu la coach di waay. maa xam ne ku koy xalaat mooy DTN bi boo <laughs> kooku bu ko tàllulee kay dina doon dina doon wala tamit coach comme eh, kii nu mu tudd. mais euh, mun na bañ a doon DTN kese. Euh, euh, dégg ko waaw. mun na bañ a doon déedéen kese mun nañ jël ñuy xalaatal kii bi ñoo xam dañuy dem di seetaan championnat bi mm. après ñu toog sur table ñoom ñu waxtaan ba philosophie de jeu lañ bëgg Sénégal mm. joué ko ñu waxtaan si ba d'accord si tënk ko dugal ko si formation entraîneur yi peut-être suñu identité mooy ni comme bu Ligue 1 duñ dugal équipe nationale tamit bu dugalee bu bëree bëri kat la peut moom lañ <laughs> moom xam nga xam nga xam nga xam euh, nga le problème s'est posé avec Amsatou Fall bi muy nekk déteel Amsatou Fall avait dit que léegi euh, euh il faut que ñu am identité <coughs> mais projet boobu liggéey boobu àggul àggul parce que ñu dañu doon méngale suñu football maa ngi kii sax dañ ko bëggoon méngale ak footballu Pays-Bas ñu ngi may dégg ñuy fekke woon loolu euh, toog ci saal ba ñu ngi koy dégg dañ ko buggoon méngale ak footballu Pays-Bas xam nga lu tax parce que Pays-Bas da doon moom la plupart jeu c'est sur les côtés moom mooy ailier yi de euh, mooy 4-3-3. voilà Pays-Bas noonu la Pays-Bas loolu mooy idéal moom 4 euh, euh, kii am identité moom 4-3-3 la. système am 4-3-3 waaw léegi nag moom mu bëggoon et parce que <coughs> football ADN ah, xam nga xam nga loolu moo tax souvent Aliou Cissé di am problème lan moo tax Aliou Cissé di am problème de jeu de fond de jeu. dafa jël identité wu génn na ci identité identité wu football euh, maanaam Sénégal bu njëkk ba. Hmm. Sénégal ni mu daan joué ni mu daan taxawee Sénégal dafa nekkoon ci 4-3-3. mais dinañ ci ñëwaat ba yaa ngi anticiper. non non non non non. <laughs> dinañ ci ñëw ci ligue bi après on va parler du du fond du fond fond kii bi nu mu tudd euh, jeu Aliou Cissé bi nag léegi nag daam junju na formation formation mu doon lu am solo football dëkk boo gis mu développé wu. il faut mu am formation à la base xale yi mun a formé wu ñu am ay centre yu développé wu identité mun a ñëw te loolu gis nañ ko bi mu commencé ci Sénégal Euh, tax na ba suñ petite catégorie ñu mun ci développer dem nañ ci euh, ñi nekk presque équipe nationale fu ñu sosoo ci formation à la base boobu la ci centre yi wala ci club yi nga xamante dañ koy def ba équipe nationale petite catégorie daal di def ay benn jéego bi nga xamante ne gis nañ ko depuis 2012 ba léegi petite catégorie def nañ ko ñu ànd ak euh, daam ci li nga xamante ne moom ngeen daan def maanaam ci formation yi ngeen daan def comme li nga àndi ñu seetaan éléments yi nga xamante ne moom nga euh, sa projet voilà projet bi nga xamante teg nga ko pour voilà léegi léegi expliquer ñu d' abord laataa ñu dem ñu seetaan élément bi projet bi lan la exactement projet bi en fait dafa nekkoon benn projet bu yàgg man ak sama benn copain rappeur bu hmm. nekkoon Danemark doon si waxtaan pour euh, aider jeunes yi pour euh, may leen ay dons sportifs affaire yooyu après du di dugg si yenn secteurs yi aussi. Mhm. fi nga xam ni dañu dañu dañu manqué yenn matériel yi pour que ñun li ñu li ñu dal bi ñuy nekk xale ñoom ñu bañ a jàll si loolu quoi. Mhm. ñu plus de moyens moom loolu moom mooy en fait idée idée idée kii bi ko projet bi. d' accord léegi nag euh, nañ seetaan élément bi après ñu ñëwaat continuer en tant que citoyen Poutouas ñuy am li nga xamante ne li ñu mën a seede ci monsieur Dame Ndoye ci li mu def nii fii à la mairie la presque la xam fii la defee délibération pour mairie ñoo ngi sant monsieur daam Ndoye parce que acte bu mu def nii vraiment acte bu rafet la te tamit ñun waa Pout surtout ñun waa Pout yëpp ak Pout Diender rafetlu nañu trop trop trop trop trop lu mu def nii franchement parlant parce que mënoon na dem yóbbu ko feneen comme ni ñëpp di ko waxee. mais ala alhamdulilah bilay mel moom xalaatul feneen mu daal di xalaat Pout kon boog ñun waa Pout képp ki nga ne mu ngi yeewoo fii ci Pout Diender franchement par là mu ngi ñaanal yàlla Dame Ndoye ñu koy ñaanal yàlla moom ak ñi nga xamante ne ay partenaires yam mooy ñi mu àndal mooy tubaab yi ñi nga xamante ne ñoom la ñoo joge bitim réew ñëw ànd ak moom vraiment ñu defal lu fii ay blouson ay maillot suñu gisee wax dëgg si ëpp vraiment ay blouson ay mayo ay godage je xam nga vraiment macha allah ba tax vraiment man Ibrahima Ba ak alpulaar yëpp ñu ngi ñaan yàlla di ñaanal yàlla tamit monsieur daam ndooy li mu mun ren yalla ko yàlla may mu mun ko déwén yaa ko Cheikh Ahmadou c'est ça bon vraiment lii laa amoon li may wax di kontaan ci yow trop yow tamit depuis commencement ba léegi parce que depuis mardi ba passé lañ fi ñëwoon jusqu'à présent ñoo ngi def tournée fii ci au niveau de Pout te yaakaar naa tubaab bi kontaan nañ trop parce que fépp ki nga xamante ne xamoon nañ ko rek vraiment dem nañ fa kon vraiment ñoo ngi sant euh, waa Thiès kii mu ñu ngi sant encore vraiment monsieur le maire de la commune de Pout muy monsieur Malick Ndiaye ak Baye Mass en tant que coordinateur moom tamit adjoint maire à la municipale muy deuxième adjoint bi moom tamit coordinateur la il tout fait pour vous te encore vraiment mun nañ ci seede parce que lépp ñoo doon ànd ah wax wax dëgg yàlla maa ngi lay sant di la gërëm tamit kon mu ngi noonu nag euh, élément boobu daam yow nga dëkk Thiès lu tax nga choisir Pout. waa xam nga projet bi biñ ko àndee dañoo njëkk a ñëw cees ñu dem seeti quelques maires waxtaan ak ñoom proposé leen projet bi pour ñu jàpp si donc euh, ñu ne projet bi intéressé na leen par la suite amuñu temps bi di dem amuñu benn retour kenn boobu ñu bon après on a essayé de les contacter pour wax leen euh, que date bi leen waxoon mi ngi si mi ngi jot te amuñu retour mais jotuñu si kenn. donc euh, si la ñu si la ñu orienté vers Pout mu am suñu suñu yaay yu fa nekk Pout déjà sama frère fa la amoon jabar sama soxna maam foofu la dëkk donc euh, ñu ne pourquoi pas xëy ñu dem et puis ñoom euh, wax dëgg yàlla ñu nekk nit ñu baax nit ñoo xam ni bon ñu projet bi à bras kontaan si lool donc ñu waxtaan ak ñoom say kàddu ñu déggoo ñu yóbbu foofu projet bi parce que aussi euh, booy booy def yenn yi je pense que en tant que en tant que ancien joueur de l'équipe nationale am na yenn yoo xam ne man pour man rafetul ko mm-hmm. comme la comme lan lan moo rafetul. Euh, maanaam di waxtaan ak ay nit ñu war la mm-hmm. ñëw en retour. ñëw ñëw en retour ñu dee tànqam na. waaw xam nga. d'accord parce que ñun bu ñu ñëwaatee du xaalis moo tax ñu ñëwaatu vers population bi. parce que bëgg a jàppale population bi la. mais du est-ce que léegi yéen seen projet bu forcément dafa war a jaar ci eh, mairie yi ba pare ngeen mun koo def wala la non c'est parce que bu ñu nee Thiès munoo tëb kilifa yi. Hmm. bu ñu nee Pout munoo tëb kilifa yi te nit ku nekk dafa am kilifa. Hmm. donc da ngay dem si say kilifa nga waxtaan ak ñoom après su nekkee projet bi intéressé wu leen bon ñun la intéressé wuñu lii moo ñu intéressé lii ak lii comment loolu ku ne am nga sañ-sañ bi mm. mais boo nee projet bi intéressé na d'autant que si jeunesse bi la jëm mm. donc mairie jeunesse bi lañu fi nekkal ak population loolu moo tax ñu dem vers ñu waaw mais waaw mais en euh, euh, euh, projet bi lan la parce ba tax dem ci yenn mairie mairie Thiès yi kiiwuñu ko nga dem yóbbu ko Pout mais dëgg lan la projet bi en fait projet bi dafa nekk projet boo xam ne dafay dimbali population bi dañ nekk en phase euh, première projet bi da ngay dafa nekk loo xam ne dañuy andi ay dons d'équipement di ko jox population bi su nekkoon projet boo xam ne c'est man damay ñëw rek jël ko jox ko sama équipe nawetaan mais dañu am ay partenaires yu ne foofu dañu bëgg a jàppale jeunes yi nekk Afrique donc du coup Danemark dafa nekk dëkk boo xam ni dëkk bu ndaw la. boo dee xool yenn équipe yi am nañu centre ci yeneen dëkk yi ay Ghana Nigéria donc man mi fa joué xam naa donc ma ne pourquoi pas loolu mënul ñëw Sénégal. pour gën a yombal affaire yu jeunes yi. donc projet bi la foofu la commencé. donc léegi premier pas yi mooy lii andi ay dons pour waxtaan ak euh, population may leen ko en ñun ñuy liggéey si ginnaaw pour ñu mën a taxawal centre yoo xam ne jeunes yi dinañ mën a bañ a jógee ci Thiès di dem yeneen dëkk yi. mën a rester Thiès jege seen famille jouer football épanouiru ba ñu suy réussir wala ñu am leneen lu ñu def mais au moins du dootuñu génn di sori seen famille. d'accord eh, eh, Cheikh Cheikh Tidiane Gomis mu ma jaaxal mooy les anciens internationaux ñu ngi def li investissement bi population wala équipe nationale def ci ñoom. ñu ngi koy andi gis nañ ni dem Ba baax moom mu ngi wax projet bi ñu bëri ñu ngi bëgg a andi indi mais lu ma jaaxal dafa concentré ci benn localité mooy dakaar Thiès en les autres régions peut-être que c'est le vide. Euh, li ko waral mooy li daam duy wax léegi dama ci am ay expérience mm. <laughs> Sénégal dafa doy waar euh, booy indi xalaat benn projet de développement mm. ñoom xooluñu loolu de ñu ngay xool lan lañ ci mën a am. ak gagné buñ ko kiwul seen yoon nekku ci duñ la sax su kii pi ay eh, alors que loolu ku mel ni Dame Ndoye wa nekk Thiessois waroon na doon maanaam benn link ak ay ay ay maanaam tubaab bi pour ñu ñëw maanaam investir dafa ay sànn dafa ay terrain dafa ay lëpp mais c'est ça le problème aujourd'hui mooy que. man am du ñu am interlocuteur boo xam ne fiable la mais am na jour yu ba dañuy ñëw am na jour yoo xam ne ñëw ba jox ba ne ma man de bëgg naa def lii waaye de fan la jaar boo ko dee jaar mu ne jaar naa ko waaye dara amul. c'est ça le problème. ok Dieye euh, les les les centres mun naa ne les centres fleurissent ñu bëri ñu ngi ko doon inquiété mais léegi mu ngi commencé bëri loo foog c'est positif wala mun nañoo gàllankoor à laa longue bon centralisation ci lu positif lay doon parce que centre moom euh, li nga soxla yëpp si ngay da ngay jël exemple par exemple euh, équipe nationale petite catégorie rek boo xoolee jour yu ñuy sélectionné yu si bari si ay centre la ñuy jóge tey boo jëlee tey benn équipe bu mel ni Dakar Sacré-Cœur bii football malgré que ay résultat am baaxul mais continue bi boo koy seetaan da ngay xam ne ñii jaar nañ foo xamante ne football foofu foofu la war a jaar paasante bi fan lañ koy def lan ngay tafee jour lan ngay def nangam lan ngay def nangam kon scientifiquement je pense que quelque chose boo xamante ne c'est positif la day apporter lu bari man su ma sañoon équipe bu si nekk di nga def le maximum ba créer benn centre boo xamante ne fa ngay créer ay petites catégories déjà c'est ça que loolu moom waral ñu am problème doo dégg mukk benn Dakar Sacré-Cœur wala benn jàmbaar wala benn euh, génération foot mu naan la non damaa am problème joueur parce que joueur bi dafa jekk-jekk dem doo am problème parce que ñoom dañ koy jël dañ koy jël en avant waaw sa petite catégorie bi dañuy commencé ak yow di la di yéeg yow di yéeg yow di yéeg yow ba finalement boo koy dañuy xam yow lan nga capable da ñëw rek intégré équipe bi sans autant que ñoom ñu am benn problème moi je vois que quelque chose boo xamante ni lu lu baax jéy dem ci daan doyu jéy mhm. dans le cahier de charge de la Ligue Pro mhm. c'est bien noté mhm. club bu nekk da nga war am centre de formation loolu Euh, cahier de charge Ligue Pro benn club respecté wu ko dañ ko bind noir sur blanc da nga war a am centre de formation ak terrain mais kenn amu ko ñi ko fi am barewul moo taxit xam nga loolu. moo taxit football football bi nga soxla pour nga am ko. problème problème mais mais mais bu fekkoon ne respecté nañ loolu ne club bu nekk balaa ngay bokk Ligue Pro da am centre boo demee FC euh, Copenhague am nañu centre de formation. nga dem PSG am nañ centre de formation nga dem Real yooyu yëpp dañ koy am dooy dégg dafa ñu naan ah xam issu du centre euh, issu du centre euh, loolu la xam nga euh, football bi day continuer. Mhm. liggéey ko à la base yóbbu fa ay entraîneur mais fii da ngay gis lan la léegi lan moo fi am mooy que léegi dañ koy contourner créer ay affaires yoo xam ne kenn xamul loolu il sont obligés ñu continuer parce que duñ leen faale mhm. interlocuteur bi mooy kan. mooy fédération sénégalaise de football fédération kiwul te pour wax la petite histoire centre de formation yi ngay wax nii tey jii bu ñu amee coupe d'Afrique centre de formation yi la. effectivement effectivement l'ossature qui a créé euh, Londres 2012. boobu ñan la woon. jàmbaar la woon jàmbaar la woon rek euh, ak génération foot ñoom la woon ñoom ñoo ko wax di conduire di conduire di conduire ba indi li nga xam ne njëriñ am na ci. jamono jamono yi ñoom bu njëkk ba bu njëkk ba. bu njëkk ba petite catégorie mais club traditionnel ñoo ko yoroon. ay GIA. Mhm. Jaraaf Thiès raay la woon ay kii seen junior yi seen cadet yi mais léegi loolu amatul. léegi waaw léegi ma laaj daam est-ce que lu tax doo leen dee leen par exemple yow nga ne ma ne ma xool kees. Thiès euh, ban club traditionnel ma wala nga ne même bu dee pas Thiès parce que international nga kon Sénégal yëpp nga fi war a nekkal nga xool par exemple Casa Sport wala Saint-Louis wala club yi nga am wala Diourbel euh, Sonacos euh, club yi fa nekk club traditionnel ngeen au ngeen dem créer beneen centre mais ngeen dem lëkkale ak ñoom comme ça mu boole seen doole bi yëpp ngeen concentré ci centre yooyu comme ça club traditionnel ñu balaa ñuy centre yi di leen rey ñoom ñu des fi ba xam nga man Thiès même li may nekk Dakar bëri na mais Thiès laa dëkk donc su ma gisee lu baax dama ko yóbbu Thiès <laughs> li ngay wax léegi euh, gis nga li ñuy li ñuy def nii projet bi c'est pour créer bridge entre Copenhague ak Thiès ok ma bridge mooy pont waaw ah. nga xam ni collaboration dinañ dinañ am ouverture am contact ok nga xam ne peut-être demee leneen mun na si am si Thiès wala beneen ville comprendre mais euh, du question dañoo ñëw nii rek pour jël nii rek joxe ay doom. ok d'accord loolu loolu ku nekk mën na ko yow mi sax mën nga ko. Ah, mais léegi am programme boo xam da koy suivre. léegi ak ñu la ñu la amuñu habitude def programme. Hmm. te lépp loo gis dafay commencer programme. Hmm. donc ñu li ngay wax ni ni lu tax du ñu si ci ci club yi. Hmm. club dañoo fekk ñu. ñu am seen programme ba pare ñoom peut-être euh, keneen kuy ñëw muy man wala di keneen peut-être ñun ni ñuy gisee ak ñoom duñ bokk donc moo tax ngay ñuy bëgg peut-être je pense sama xalaat ba bu gàtt moo tax ñuy xalaat nii dañuy créer suñu centre bopp andi philosophie de jeu pour jeunes yi mën a épanouir parce que boo ko boo ko deful Thiès après da nga koy def beneen dëkk te jeune Thiès yi dañuy jóge foofu dem feneen di jouer bàyyi seen famille sori ñëpp comme man ni ma def man li man li exemple la moo tax ma wax la loolu jox naa la sànq man la man fi ma jaar yu metti bugguma sama yenn rakk yi di fa jaar moo tax lu ma leen si mën a aider dama koy def moo tax ma ma ma ma ma lancé projet bi. nga xam xalaat mais mais léegi nag comme tànqalam nañ ne est-ce que da ngay bàyyi projet Thiès bi nga yóbbu ko Pout wala feneen nga ko yóbbu wala Thiès moom bàyyi nga. non non loolu loolu garaawul man man loolu garaawul je trouve que juste ni mu demee la rek moom moo ma moom ma neexul mais ku nekk am nga droit ne bëgguma def lii wala bëgg naa lii wala bëgguma lii man je respecte aw ma aw ma problème boobu. d'accord mm, aw ma man je préfère sax nga aw ma moo gën a. aw ma problème boobu. d'accord mais Pout aussi dafa nekk euh, ville boo xam ni ville bu ville bu rafet la. man bi ma demee laa koy soog a découvrir te et puis am na am nay jeunes talents am nay coach yu fa nekk donc je pense que aussi ñoom il mérite aussi ñu am ñu am euh, lenn loo xam ni peut-être suba dinañ am ay ay ay ay ay futurs jours aussi. d'accord d'autant plus que Thiès forme centre yi bëri benn la Thiès pour benn pour benn c'est à 15 minutes. effectivement donc soo xoolee même bu amee centre suba demain waa Thiès mun nañ fa ñëw. parce que benn la soriwul c'est à 15 minutes c'est pas 70 kilomètres wala cent tu vois des choses comme donc mën na nekk loo xam ne si Thiès bi yëpp lay lay parce que boo dee xool génération foot mi ngi Thiès mais sori na na effectivement tu vois donc Pout moo gën a jege donc ça Pout mi ngi si biir Thiès d'accord eh, eh, coach moom ko doon wax lu maa ngi doon posé question bi mooy nag centre yi ni ñuy gën a bari problème bu ñu am problème affiliation fédération de l'EMINA Dakar dafa saturé Eh, boo leen génnu ne duñ leen affilier loolu tamit benn problème bi nga xamante war nañ ko résoudre. waaw mais non c'est que euh, loolu loolu débat la débat la dans le football sénégalais. léegi nag Dakar pour pour pour loolu pour nga mun ciy tontu nañ seetaan élément bi nga xamante ni Young Star Boy boobu le problème moom la moom lañ jànkoonteel gannaaw bu ñu amee benn international muy xaritu daam euh, daam doy bu fi nga xamante ne ñoom bokk nañ Copenhague joué fu mooy Ragnar son Eh, nañ seetaan élément bi ñëw kon nag euh, dinañ ci dikkaat ci élément bi nga xamante ne mooy élément boobu Young Star Boy yi nga xamante ne ñoom nag euh, euh, Gomis waaw problème affiliation dañ leen naan Dakar dafa saturé il faut boo leen génnee Dakar dañ leen mën a affilier non xam nga dafa am benn constat boo xam ne dama ci d'accord ak fédération sénégalaise bu football mm. constat bi xam nga mooy lan Dakar dafa bari ay club te ay bu Dakar yii da ngay gis ay club ci saak ci saak ci saak amuñu siège amuñu fenn Dakar da ngay gis euh, club da ngay gis nit day nit day nekk ci benn club nii am club nit day nekk ci benn club nii yore club ci loxoom gars yi dañuy jaay club yi effectivement Dakar moo bari club léegi nag il faut bàyyi nag Thiès région yi ñoo ñoo am ay club yu bari waaye Dakar li fi am ci club moo bare il faut que gars yi nangu loolu nag loolu rek ay problème ok jë jë waaw mais kon su kay wax na wax na lépp da ngay xool sunu championnat bi ñaata club Dakar moom moo fi moom moo fi. Ah, te mu nekk championnat boo xam dañ ko waroon euh, régionaliser maanaam quatorze régions yëpp bu fekkee quatorze régions yëpp mu kenn bu ci nekk mënu cee am club au moins <coughs> neuf yi <coughs> wala dix yi ñoom ñu am ci club mais boo xoolee championnat bi te loolu lu muy lu muy répercuté day répercuté si yenn équipe bi par exemple jëlal benn Casa boo xamante ne chaque jour bu recevoir benn dina dina dépense xaalis bu bari pour ñëw Dakar imaginer xaalis bu weex tàll lay lay dépasse lool lool lool lool lool da koy désavantage désavantage par rapport ak yenn équipe par exemple tey nga joué sa sa biir dëkk après nga war a ñëw football ak jaraaf nga delluwaat recevoir kenn nga war a ñëwaat football ak Tëngéej FC nga delluwaat ñëwaat war a football ak Guédiawaye football club loolu lu ko waral mooy club yëpp ñu jël ko concentré ko ci benn ci benn ci benn région loolu tamit c' est trop difficile kon nag c' est tout à fait normal ñu créer ay centre de formation si yeneen dëkk yi au moins ñuy am ñi am yaakaar ne yenn dina créer ay club yoo xamante ne xëy na dinañ am benn championnat boo xamante ne championnat régionalisé lay doon mais championnat boo xoolee boo ci génne si club bu Dakar yi nga xool lan moo ci def <laughs> am daam daam eh, eh, gis nga ni eh, centre yi ñuy bëri ni dinañu arranger dina dina développer le football Sénégal waaw football formation moo ko yor mm. donc euh, su amul centre doo soxlaatul ñuy football mun nañ dem comme gars yi joué 17 heures rek ñu jël fa ay jour rek jeex na xam nga mais centre il faut muy am mais il faut ñu décentraliser ko mu mu génn si si si région yi parce que loolu moom mooy moom mooy dooleel football bi parce bu concentré woo fenn rek déjà foofu noonu day métti déjà si ñooñu parce que euh, su nekkoon am na trois équipes Dakar par exemple wala quat peut être dinañ mën a am ay sponsor dinañ mën a am yenn ak yenn day facile si ñoom. Mhm. mais buñ bëree ba day ñu toog fii rek ñun ñëpp ñuy jaayandoo la même chose. Mhm. waaye nag am na beneen phénomène am na beneen phénomène daam mhm. phénomène bi xam nga mooy lan bu ñuy wax tam de cas c'est que tamit à l'intérieur du pays tam jéemuñu liggéeyuñu tamit parce que lu tax liggéeyuñu da ngay gis benn maanaam football bi foofu du bëri bi gars yi di football boo buggee yow sa région gars yi di ci euh, maanaam muy muy muy muy produit ay ay équipe mm-hmm. compétition bi day bëri mm-hmm. c'est ça xoolal Thiès Thiès politique bi ñu defoon tey jii ils se sont retrouvés avec combien de clubs en Ligue 1 et en Ligue 2 effectivement parce que y un travail <coughs> boo xam ne Pape Sidi Lo defoon ne ko travail boobu woo entraîneur yëpp ñu ñëw toog mais après ñu ba ci biir tey jii ngay bàyyeeku. parce que équipe nationale euh, bi élément bi na ñu déglu élément seetaan élément bi ñëwaat. Porté sur les fonds baptismaux le 30 octobre 2020, l'Académie Young Star Boy, les Jeunes Étoiles, a franchi de grands pas en seulement deux années d'existence. Young Star Boy, avant on a recruté plus, plus de 300 jeunes, mais à l'heure actuellement on a 173 gosses, du, du jusqu'à U18. Actuellement, bon, on a beaucoup de mais on ne pas prendre tout euh, de gosses. Donc, euh, on a gardé euh, 27 à le local. Et mange matin, Milan for Africa, une organisation qui s'occupe du bien-être des albinos, est la principale bailleur de l'académie Young Star Boy. Uh, Cette académie est un uh, projet que nous avons eu l'idée depuis 2020 uh, et nous avons eu l'occasion de le mettre sur pied la même année. Donc c'est pour aider les enfants talibés qui sont euh, dans les rues, qui euh, mendient dans les rues, une manière de leur donner une chance de réussir leur vie. Nous l'avons créé avec euh, Moussa Kamara qui est le président Pour son deuxième anniversaire, le président Moussa Kamara a décroché l'ancien international islandais au 97 cap Ragnar Sigurdsson pour souffler les deux bougies de l'académie. Il revient sur la genèse de cette collaboration. Maintenant, la femme de Renan euh, lui a parlé à propos de Young Sabo. Comme le meilleur ami de, de, de, la dame qui est à donc ils ont juré nécessaire que, euh, pour, pour, décrocher euh, Ragnar pour venir pour regarder Avant tout d'abord, Regna a vu euh, trois, quatre vidéos euh, euh, sur le gosse. Maintenant, il a dit, il a dit que ça, ça suffit pas. Il faut qu'il vienne physiquement pour regarder les, les, les, les joueurs, la manière dont qu'ils jouent. Après, on va, il va essayer tu vois qu'est-ce qu'il qu qu va Après s'être réjoui de l'accueil et des talents des jeunes du centre, l'ancien joueur de Fulham en Premier League compte bien pérenniser ce partenariat avec sa famille. Je suis très content d'être ici. J'ai rencontré pas mal de gens et ils sont tous euh, sympas. Ils m'ont accueilli avec tous les honneurs et je pense que l'Académie Young Star Boy est sur la bonne voie de devenir un grand club. C'est pas uniquement moi, mais ma famille aussi va aider cette académie. Nous ne ménagerons aucun effort pour l'essor de cette académie. Donc nous allons tout faire pour pérenniser cette collaboration. La seule fausse note pour bien harmoniser la musique est l'absence d'affiliation au niveau de la Fédération sénégalaise de football. Ibrahim Diallo, secrétaire général du 10 Centre. Déjà, l'académie est créée en 2020. Donc, on a essayé de mettre les petites catégories en place. On a arrivé directement à s'attaquer le récépissé. Donc, Dieu a fait que vraiment on a eu notre récépissé. Donc, ça nous a resté donc l'affiliation au niveau de la Fédération sénégalaise de football pour ñu mën a compétir donc euh, travail foofu la toll nii sur le plan administratif en tout cas ci centre bi. L'Académie des jeunes étoiles ne manque pas d'ambition. Donc l'objectif pour l'Académie, c'est pour mieux faire avancer l'Académie, puisque Young Sabre Academy soit comme les Jamba, les Générations Foot, les Aspire, et le Dakar Sacré-Cœur. C'est ça notre objectif. Pour intégrer le centre, la priorité est réservée aux Sénégalais. Ensuite, les jeunes Africains, à l'instar d'un Ivoirien, deux Sierra Leone et trois Guinéens qui y sont déjà. La journée de ce dimanche a été clôturée par des matchs de football des différentes catégories du centre, dans une ambiance pour enfants. Dame do bi nga gannaaw bi ñu seetaanee élément bi sa ancien coéquipier foofu la ci Copenhague euh, ban commentaire nga ci am ñoom ñoom seen problème mooy affiliation bu ñu am. waaw bi mu ñëwee woon na ma mais jotuñu woon. Euh, gisee euh, gisee pour pour waxtaan si si kiiwam bi si projet bi aussi. Mm. ak centre bi parce que moom a bi mu ñëwee daf moo waxoon dafay dem seeti ay waa Fandène ay ay xale yu démunis. Mm. foofu affaire yi donc. mën jotuñu gisante quoi mais euh, euh, nit ku baax la nit ku baax la defenseur la joué nañu presque deux ans trois ans à Copenhague. à Copenhague mm. ok euh, coach waa léegi continuer sa sa lancé bi ci problème d'affiliation bi nga xamante mooy seen problème. non non loolu laay wax dama ne. Dakar dafa saturé Dakar dafa saturé dafa am ay club yoo xam ne fii ñu fii dégg mais beneen phénomène def ci ñëw mooy. Euh, liggéey bi liggéey yi a liggéey ba tax mu euh, euh, maanaam foofu muy am ay club defuñu ko ou bien ñu fay jouer xam nga sa xam nga souvent dama leen di wax ne Thiès jël na kii bi ba football bi xaw nga toxu Thiès football bi mu ngay toxu Diourbel xool leen ci organisation maanaam compétition ci ligue yëpp da ngeen di gis Diourbel dafa maîtriser ba pare Diourbel am chance tey jii day am day am ñetti stade le stade de Mbacké <coughs> le stade Elimanel Fall ak le stade de Bambey xam nga boo amee loolu yëpp boo amee loolu jeex na compétition yi day bare bu compétition yi day bare nag léegi club yi club yi ay club yi nekk ci suuf dañuy ñëw yéeg mu am yeneen club yu créé foofu loolu loolu il faut que Euh, président de ligue yi ñoom ñoo war a liggéey loolu. d'accord euh, Dieye Dieye euh, mu ngi ko doon wax Bambey Diourbel léegi dina am trois ñetti ñetti stade. Mhm. Ziguinchor wala Casamance bu ñu bu ñu koy waxee foofu nag Sédhiou sept ans seen problème stade bi nii nga foog ne foofu football dinañ am petite catégorie parce que li nga xamante ne si suuf ngay footballé Eh, doo ci am doo ci am ki loolu beneen problème phénomène la buy gàllankoor essor eh, football bi. waaw problème manque d'infrastructure bokk na ci lu freiné footballu Sénégal. parce que imagine sept na mm-hmm. stade bi nga xamante ne nañ ko ni nag ba léegi mu ngi ci. ah xanaa ngi sew bi stade Aline Sitoé Diatta bi ñoo xam dañ koy defar. fi mu ah. toll nii Sport sax xamul ba xam ndax dafa war a. des foofu dafa war a ñëw parce que amuñu ay information. te ba pare lancé nañ ko mais teewul moom ma ngay ma ngay ma ngay football foofu ma ngay ma ngay ma ngay continuer di football amul sax information boo xam ne dafa a ñëw fii dëkk yi problème infrastructure moom dëkk bu mu am football ba dina yéex a développé tamit euh, booy dem guerre day fekk nga yor arme ñun suñu arme moom mooy am ay infrastructure yu baax yoo xam ne dañ koy footballé fi ngay footballé championnat yow ak ñii football nawetaan yéen a koy xëccoo ndax am na lu muy demee sax ñi football nawetaan ñoo la fay ëpp doole. te pourtant Ziguinchor y a beaucoup de centres am na benn am centre de football. bi fu mu nekk ak modernité bu football bi toll mënoo di développer sa football ci suuf loolu mënta ne. mënoo di football ci suuf xott bi te di jam ay xeer di jam après nga bëgg a nekk professionnel c'est vrai que nag da jaar ci ay kii yu métti métti nag boo bëggee euh, nekk dans le professionnalisme mm. da ngay xamante ne professionnel yi fa ñuy def wala synthétique loolu nag nekkul ñoom seen faute faute euh, gouvernement bi sax la la lay wax parce que moom moo war a dugal loxoom bu baax a baax ci tabax ay infrastructure yoo xam ne dina permettre Sénégal actuellement fii ñu koy tudd nii parce que Sénégal fu ñu koy tudd dafa sori xam naa bu ñu ñëwee peut-être si équipe nationale bi di di di nga ci wax Sénégal fépp lañ koy tudd léegi nag mënoon dina tudd fépp booy xool tey booy seetaan championnat bi nga gis man à sa fois dama gis ay tubaab yu bari dañuy ñëw yor seen caméra di filmer parce que ndax lan Sénégal gagné na Coupe d'Afrique Sénégal léegi nekk na ci pays bu mag a mag léegi nag lan moom moo ci des développer nos infrastructures pour que suñu football gën a développer loolu lañ bëgg nekk comme pays Maghreb lu fa am ñun ñu am ko hmm. xaw ma nag ba xam ndax après dina possible ak suñuy gouvernement am déet mais loolu la ñuy espérer daal d'accord eh, Dame souvent yéen boo lu baax ngir eh, dugal eh, développer le football Sénégal lu leen gàllankoor mooy ni ki Gomis junj na ko Mamadou Dieye junj moom mooy nag képp ku nga xamante ne dirigeant la dirigeant yi leen war a gën a jàppale ñoom bu ñu amulee lu ñu ci lekk rek mu doon problème loolu tamit war nañ koo xoolaat. non man xaw ma xaw ma ndax loolu la parce que man maa ngi soog a ñëw. Hmm. maa ngi soog a def lancé premier projet. Hmm. donc euh, xaw ma ndax euh, loolu la wala déet. mais li mu bëgg a wax mooy ancien international bu jógee fenn bu joué benn niveau bi ba ñëw am na yenn projet yoo xam ne su ko àndee mu doon projet yu fiable. war nañ ko mën a déglu accompagner ko parce que du pour moom développement dëkk la. développement sport la bu dee feneen la si si santé si si wàllu santé te développer santé bi su dee si leneen la aussi ñu jàppale ko ça dépend fu mu bëgg fu mu bëgg a accentuer euh, kii woom projet woom. donc euh, man je pense que war na mën a yomb si internationaux yi nga xam ni bëgg nañu jàppale. sportu Sénégal mu avancé. parce que aussi tamit toog di wax di wax lii amul lii amul te jéemoo dara tamit du sotti. mais tamit boo jéemee aussi dañ la war a accompagner. <coughs> transition tout trouvé yaa ngi doon wax ancien international dañuy wax interna suñu internationaux yi nekk jamono ji ci club bi ñu waxtaanee ci li nga xamante ne mooy équipe nationale bu Sénégal laataa ñu dugg ñu saa su nekk suñu doyen Thierno Dar dem ñoo tàmbal ay chronique nañ déglu chronique bi daa laataa ñu dugg ci Ila Une bonne équipe de football, c'est d'abord de bons dirigeants. Une bonne équipe de football, c'est aussi de bons joueurs. Mais une équipe de football, c'est également de bons entraîneurs. Des entraîneurs, notre pays en dispose, des bons et même des très bons. Entraîneur de l'équipe nationale qu'il soit, Aliou Cissé n'en demeure pas moins un entraîneur local. Un entraîneur local Euh, chronique bi dinañ ci euh, dikkaat bi euh, kon nag ñu waxtaanee ci équipe nationale bi Dame Ndoye des nañu quelque Aliou Cissé ni aljuma bi la war a fësal listam nañu daal benn liste probable bi nga xamante ne euh, am nañ ko bu ci complicité Charles euh, Charles ñu seetaan liste boobu nag bi nga xamante ne kon nag euh, Aliou Cissé boo moytul la lu ciy changé du bëri comme ci gardien yi bokk na ci ki nga xamante ne mooy Alfred Gomis Seny Dieng ak Edouard Mendy ci milieu terrain bi ñu ci défenseurs yi ñu am ci Kalidou Koulibaly Abdou Papa Abdou Cissé Abdou Diallo Moussa Niakhaté Youssouf Sabaly Saliou Ciss sa euh, Ciss bi nga xamante Aliou Cissé nee bu amulee club euh, du ko du ko du ko du ko du ko ku amul club sax maanaam du la woo ci listam but euh, reste à savoir ndax dina ko am déet Ismaïla Jacob Fodé Ballo-Touré Noah Fadiga Euh, Noah Fadiga moom woote woon nañ ko ci match amika jongante xaritooy waaye mu am problème euh, ci milieu yi ñu sentu ci euh, ki nga xamante mooy Idrissa Gana Gueye Cheikhou Kouyaté Nampalys Mendy Pape Gueye Pape Matar Sarr Pathé Ciss Crépin Diatta ak Moustapha Nam léegi nag pa nu mu tudd pa Dame Ndoye bu ñu jugee ci sélection Coupe d'Afrique bi ñuy ñëw noo gisee état de forme suñu joueurs yi foofu la ci extérieur laataa ñuy wax ci liste bi probable waa xam nga laajoon nañ ma ko si benn télé interview période boobu yenn jours yi joué wuñu woon hmm. dañu blessé woon ñi amaguñu club waa ma compétition boo fay dem il faut nga am jour yoo xam ñi ngi compétir il faut nga am jour yoo xam ñi ngi joué sinon du du du am sens ngay dem compétition bi quoi parce que hmm. doo fa mën a jëlee résultat mais waxoon naa leen ne leen des na temps bi des na hmm. am na amoon nañu defe naa deux à trois mois man leen temps bi des euh, yenn joueurs yi mën nañ gagner seen place ñenn ñi mën nañu am club ñenn ñi aussi mën nañu retrouver seen forme te je crois loolu moo nekk di ñëw nii yenn joueurs yi Cheikhou mi ngi joue mu ngi commencé retrouver forme am mais ba tey ba tey bëriwul ba tey bëriwul ñi nga xamante ne moom mën nañoo ne comme par exemple bu ñuy dem kaan euh, xam nga affaire bi neexoon na mais léegi euh, nu mu tudd jamono ji nii kii football ñii naan titulaire indiscutable wala kii la peut-être euh, kii la Sadio la wala Kalidou Koulibaly bi nga xamante ne saa ñu teg ko ba euh, Idrissa Gana Gueye commencé na xanaa blessure bi ko bi ko dal ni tamit ça n'inquiète pas également ak Pape Pape Gueye ak euh, Bamba Dieng ñoom ban la ñuy toog Matar Sarr kenn waxatu ko ak Nampalys yooyu. waaw après loolu dafa dina dina compliqué ko mais après ça dépend si entraîneur bi rek peut-être am na fu mu am na lu muy préparé pour ñoom. mais euh, su nekkee loolu dina dina xaw a compliqué si ñun. Mm. dina xaw a compliqué parce que il faut boo xoolee équipe nationale saa bu nekkee di def ay résultats yu baax rek dafa jour yu bëri dañ nekk en compétition. en compétition moitié bi yëpp ñu ngi compétition même su dee ñeneen dañuy dugg sax mais genre dinañ am benn quinze boo xam ne ñëpp ñu ngi compétir quoi. d'accord léegi léegi léegi lan lay def nga nekk football professionnel euh, nga manqué compétition nga war a dem compétition bu toll ni coupe du monde. lan la lan la lan la lan la lan la lan la mën a jural comme gàllankoor. waaw jour moom jour préparation compétition moo ko yor amul leneen boo deful préparation bu baax <coughs> da ngay day am ay défaillance si si si biir compétition bi boo amul euh, compétition aussi ay blessure dafay ñëw te sa sa résultat yi dafay wàññeeku donc euh, loolu c'est obligatoire. d'accord eh, eh, Cheikh Tidiane c'est pas inquiétant parce que gis nañu ñàkk compétition bu ñu ko bu ñu doon wax dal na Idrissa Gana Gueye mu ngi nii dafa dem enchaîner ay match rek am xaw a am xaw ma ndax dina yàgg mais keroog dañ koo génne parce que mi-temps bi sax bi ñu demee ñëwaatul ndax dafa est-ce que loolu tamit du ñu gàllankoor ci biir compétition jour boo manqué nga bugg a ñëw benn rythme ci préparation bu ko enchaîner match yu jege yoon est-ce que duñu gàllankoor ci wàllum blessure. xam nga man. Euh, man Sénégalais yi man man daal man vraiment gi man dama comprendre waaye du football la ñuy wax. Mhm. y a combien de Sénégalais dans ce monde là. mais ossature non non non oui bàyyi la ay ossature tey jii am na ay équipe yoo xam ne équipe yooyu dégg nga am nañu ay absent mais changé nañ leen tey Pogba. di joué saa yi. déjà xalaat na ku koy kii. Kanté tamit du dem Kanté tamit du dem. du loolu yëpp xalaat na ut keneen am na am na beneen français y a des sénégalais ay Gana Gueye ak ay diw ak ah, waaw blessure fu nekk la lay fekk mën nga ñëw ba ci ba ñu ne à deux jours de la coupe du monde nga blessé mhm. kon xam nga lan la dama ne. Euh, c'est à lui d'aller trouver les meilleurs les meilleurs sénégalais yóbbu leen c'est pas parce que kii moo gagné coupe d'Afrique wala kii moo gagné lii man d'accorduma ci loolu bu dee kooku ki gagné coupe d'Afrique mu ngi mu ngi performer mu ngi def ay performances yóbbu leen ka loolu loolu c'est logique koo xam ne nag sincèrement amatul compétition nga gis ne kii amatul compétition nga dem nga naan da nga koy yóbbu fële fee nga xam ne ay tacticiens ñoo fa nekk dañuy calculer yow ñaata match nga joué ñu xool ko analyser ko billaahi doo boo laalee benn bal dootoo laal ti bal <laughs> eh, eh, eh, Mamadou Dieye euh, du est-ce que tamit euh, problème euh, problème problème physique du ñu du sonal suñu joueur yi nga foog ne Aliou Cissé dina am jotu préparé maanaam bu wooree ñu bees ak ñu mu tàmm di woo depuis 2015 presque ma benn osaat bi bu bu bu bàyyee ñooñu di du am problème parce que temps bu mu am bëriwul pour defaraat beneen équipe waaw waaw mais temps bi moom d'une part moom am na si rôle bu mu si joué mooy amoon nañ ay marché amicaux yoo xamante ne ay dañ cee waroon profité ah, test ci suñuy joueur ah waaw tey Ismaïla Jacob tey. <coughs> waaw ku ci def pronostic. Mm. sénégalais nga toog ne Ismaïla Jacob nangam ak nangam loolu dëgër fit la. parce que déjà il ne joue pas beaucoup. jéewul Monaco. waaw ñëw na Sénégal tuuti la joué. mënoo ko juger à travers ces quelques yaa ngi dégg Moussa Niakhaté bi ñuy wax nii tey. boo ko yóbbee coupe du monde man na xaw ma ba xam mais boo ko yóbbee coupe du monde nii tey boo ko yóbbee coupe du monde tey da yóbbu Saliou parce que Moussa Niakhaté lu mu football bariwul. ñëw na sa convoqué nañ ko dafa blessé. mais boo blessé boo ñëwee est ce que di nga amaat euh, am largement ñun coupe du monde bi li si def est ce que il aura le temps voilà est ce il aura le temps si 14 que disputer nag sur un choix d' un mm. loolu dafa xaw a kii parce que entraîneur à chaque fois lu lay laaj mooy résultat mais nag. di xam loo xamante yow en tant que observateur wala en tant que koo xam ne da waxuñu les meilleurs joueurs de euh, kii de euh, kii de mais les meilleurs joueurs du moment. voilà yooyu dong la. <laughs> ñu jeexal ko chronique Thierno Daaf bi laataa ñu euh, jeexal ci débat yi. une bonne équipe de football. c'est d'abord de bons dirigeants. une bonne équipe de football. c'est aussi de bons joueurs. mais une équipe de football. c'est également de bons entraîneurs. des entraîneurs. notre pays en dispose. des bons et même des très bons. entraîneur de l'équipe nationale qu'il soit, Aliou Cissé n'en demeure pas moins un entraîneur local. Un entraîneur local champion d'Afrique. Un entraîneur local qui a damé le pion aux sourciers blancs. Un entraîneur local qui hante le sommeil de Carlos Queiroz. Qualifié pour le dernier tour éliminatoire chez les U23, Demba Mbaye est un entraîneur local. Qualifié pour la CAN dans la catégorie des U20, Malik Daf est un entraîneur local. Qualifié pour le CHAN après 11 ans de disette, Pape Thiaw est un entraîneur local. Qualifié pour la CAN chez les U17, Serigne Saliou Dia est un entraîneur local. Vainqueur de la dernière CAN de beach soccer, Mamadou Diallo est un entraîneur local. Un entraîneur local qui a succédé à un entraîneur local. Que dire encore des adjoints de tous ces entraîneurs? tous aussi méritants que les titulaires. Nul n'est prophète chez soi, dit l'adage. Mais comment occulter les performances de Lamine Ndiaye en Afrique? Comment étouffer les prouesses faites par Moustapha Seck en Mauritanie? Peut-on passer sous silence la montée en puissance de Omar Daf, de Habib Beye et de Mbaye Leye entre autres? La nouvelle vie de Ngala au Maroc, qu'en fait-on? Le nom de Sadio Demba n'avait-il pas circulé dans les couloirs des Lions à un moment? Qui n'a pas souvenir de Boubacar Sarr Locotte comme coach et tous ces anciens joueurs reconvertis en formateurs, qu'en fait-on? Chez nous, il se nomme Cheikh Gueye, Youssou Dabo, Souleymane Diallo, Pape Ansou Diadou, Mbaye Badji ou encore Lamine Diagne et j'en passe. Ils ont avec eux leur jeunesse. avec eux des diplômes de haut niveau. Ils ont avec eux leur talent. et leur professionnalisme. On les appelle l'expertise locale. Non, ils sont l'expertise sénégalaise. Pour légitimer leur choix porté sur des nasarans, des présidents de clubs ou d'académies les dénigrent. La Fédération sénégalaise de football fait la sourde oreille. La direction technique nationale fait profil bas. Ici, des navettans sous le nom de Touré Kunda, Mbour Petite Côte a gravi tous les échelons. Des navettans à la Ligue 1 jusqu'en Coupe d'Afrique, L'équipe de Santessou a toujours été coachée par des nationaux. Arrivé avec l'ambition de dominer tous ses adversaires, décidé à faire de MPC la meilleure équipe du Sénégal et même d'Afrique, attendus comme des messies, des faiseurs de miracles, les Italiens Vittorino Mauri et Paolo Ceramicola n'ont rien fait de mieux que précipiter MPC en Ligue 2, ce que les sportifs mbourois ne leur pardonneront jamais. Mbaye Diouf Dia a certes rectifié le tir mais le mal était déjà fait. Deuxième du championnat national lors de la saison 2020-2021, éliminé dès le premier tour sans surprise en Coupe CAF, Mbaye Badji avait été remplacé par Bruno Roar. Ce même Bruno Roar qui était parti de Dakar Sacré-Cœur pour insuffisance de résultats. Resté 8 matchs sans victoire la saison dernière, Bruno Roar est le détenteur du record de la plus longue série sans victoire de Djambar. les académiciens se battent pour un retour au premier plan. Avec Tenguet, Mbaye domine ce début de championnat. Champion du Sénégal avec Génération Foot, Djibi Fall est rangé dans les placards la même année. Olivier Perrin arrive. Soupçonné de mener des actes pédophiles, Perrin prend ses jambes à son cou. Jolie façon d'échapper à la justice sénégalaise. Direction l'Afrique du Sud, ne dit-on. Génération Foot court toujours derrière un second titre la performance de Djibi Fall est toujours inégalée ginnaaw ku xamul foo jëm dellu ci fi nga jóge woon Djibi Fall est encore rappelé au secours pour cette année. Si Olivier Perrin a échappé à Dame Justice sénégalaise tel n'a pas été le cas pour Olivier Brice Sylvain. Écroué pour viol, pédophilie et viol de mineurs des délits commis sur des pensionnaires de Dakar Sacré-Cœur âgés entre et 15 ans au moment des faits. Olivier Brice Sylvain a purgé plusieurs mois de détention. Il vient d'être récemment élargi. Menacé de relégation en 2020-2021, Dakar Sacré-Cœur renvoie David Le Bercy à cinq journées de la fin du championnat national. Hassan Fall arrive au pied levé et réussit le miracle. Face aux navires qui tanguent et voguent en eau trouble, Oslo FA rapatrie Alioune Mbaye de Alioune Mbaye qui avec Keur Madior avait entamé l'opération accession en Ligue un Alioune Mbaye est à présent remplacé par un Norvégien dont je tairai le nom pour ne pas le charcuter waaye nag lu xeegul suñuy bët. Toutes les coupes ont été gagnées par des nationaux. Tous les titres ont été remportés par des nationaux. Que demander de plus? Hormis Bruno Metsu, Peter Schnittger wala tuuti Claude Leroy benn nasaraan defu fi lu ñu jaaxal. Nit du tuutal boppam. démb ba tey jii suba nag yàlla xam lu fi baax ci football bi doomi réew mi ñoo ko fi def bu ñu kenn fat jërë jëf euh, mu doon euh, li nga xamante ne mooy chronique euh, bu Thierno Dame saa su nekk altine bu nekk ñu ànd ci di ko déglu daam dégg nga chronique Thierno Dame waaye nag suñu temps bi jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo nga wax li nga xamante ne bëgg nga koo wax te laaj ñu la ko waaw maa ngi maa ngi di remercier ci invitation bi jox ma opportunité bi ma wax ak sénégalais yi aussi euh, di remercier ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci plateau bi te euh, euh, Sénégal rek tax leen jóg. Mhm. donc di leen remercier di leen encourager et puis di nuyu sama famille sama yaay ak sama sama xarit yi ñoom ñëpp di leen nuyu te di wax nii lépp lu ñu def rek Sénégal moo tax ñu ko def parce que moom lañ am. amuñu leneen lu dul Sénégal boo doon leneen duñ ñibbi dañuy toog foofu jàpp suñu ñaam. am nga yaakaar ci ci coupe du monde bi. coupe du monde bi football rek comme li liñ doon wax fii ak manquement yi ñu am ak affaire yi demee noonu dañuy dañuy dundee yaakaar rek chaque jour ñu dundee yaakaar te gëm ni war nañ mën a am yenn yi quoi. Euh, waaw dama koy remercier moom <coughs> euh, maa ngi koy tooñ sànq di koy naan. li ma bëggoon euh, ñu réussir ko fii Walf mhm. malheureusement on l'a pas réussi mhm. boole ko moom ak frère am Ousmane Ndour xam nga ñoom ñaar ñëpp ay ancien internationale lañu te jaar ñoom ñaar ñëpp dañoo jaar GIA dégg nga euh, soog a dem et ils ont fait des merveilles mhm. euh, bëggoon nañ loolu mais bon euh, malheureusement may nuyu Ousmane Ndoye maanaam maa ngi koy nuyu au passage vraiment di lay kii kontaan nañu ci euh, li nga xam ne moom mooy euh, Dame euh, di wax ne rek ñu ngi xaar listu Aliou Cissé le 11. y aura un débat en direct à la télé à la télévision. dégg nga dañuy maanaam def direct bi à parti de foofu Sénégal yi xool xam kan la Aliou ñan la Aliou di woo. waaw pour ñu xam ci comme ça ñu débattre. ba pare yu mu wax ñu delloo bu bu defee bu jalgatee lu mu waxoon ñu delloo ko ci ay kàddoom defal ko vaar. Dieye. Euh, hmm. waaw bon mbégte la woon ñu toog ak euh, sunu invité bii di damm Ndoye jàng nañ ci lu bari ci moom vraiment. plaisir la ñu dalal ko fii mais peut-être may profité ci tribune bi c'est vrai que waroon nañ am ku ñuy wax Nafi Layla Ndiaye mm. bu nekk euh, fédération sénégalaise bu handball boo gisee ñuy wax mooy ñun suñu suñu suñu suñu su suñu voix war nañoo profité puisque Sénégal moom moo ñor mm. ñu def appel à tous les Sénégalais ñu dem supporter ji ñi nga xamante ñoom ñooy Lions yi parce que Sénégal moom moo invité li nga moom moom moo organisé <coughs> vingt-cinquième dañoo wàcc aéroport bi mais dañoo sentir na sax kan amu fi loolu nag xëy na peut-être ñoom la woon loolu lañ bëggoon ñu invité Layla Ndiaye malheureusement dafa fausse note mais ñi ñaan sénégalais yëpp rek ñu manko ñëpp ñu dem fële ne Dakar Arena ñu dem supporter ji Lions yi jusqu'au bout ba mu jeex tàkk ñu jël ko bi indaale ko avec euh, notre kii Yacine. Walf comme tous les événements tous les grands événements saa su nekk ñu ngi fa lépp lu jëm ci actualité sportive ñu ñi ci maanaam yaa ngi gis bit ko bu nit ñi bëree di wax à travers Walf la